xelu jàngalekat yëpp xool leen sama ginnaaw syndicat jàngalekatu Sénégal yëpp fi dajaloo yàgguñu fa yàquñu fa ba ñu ñëwee lu leer lañ leen wax mooy benn nit day fonk kàddoom ñaar jéem ngeen ñu jaxaseeg askan bi wante yàlla bañ mu am ay góor yu taxaw weddi ko ñu ñëw fi ñoom ñu gëm ni def nañu erreur ñu nangul leen ko ñu leen nag gudd na gàtt na la balle est dans votre camp écart yi ñëpp xam nañ ko ku si nekk xam na ko régler leen écart yi balaa vendredi soo leen ko réglé balaa vendredi jàmmandal ñooy ñu jàngale soo ko réglé wul école tëj na loolu rek léegi ñoom ban engagement lañ jël fii ak ñoom engagement bi ñu jël mooy tey ñu liggéey à partir de maintenant ba fajar régler xool jàngalekat yi quatre-vingt-dix-huit mille kenn par kenn li ñu la ameel gab bi. si la nekk nag ñu régulariser ko suñu paree mu am ligne boo xam ne ñu nag ñoom dañ koy d'accord fii yëpp gannaaw suba ndax ligne bi complément spécial lañ koy tuddee wala koy tuddee mais tout compte li ñu soxal mooy kemb gi na mat te nee nañu ñoom kemb gi dinañ ko matal si tableau bi nga xam ne jàngalekat yëpp jot nañ ko moo tax daal euh, la balle est dans leur camp nee nañu tey dañuy dañuy nuit blanche ko reconnaître nañ ñoom ñoo def erreur bi suba nag ñun ñu ñëwaat su su ko yàlla defee ñu réglé ko cas par cas ñu def émission spéciale jàmm na ñooy mais su amul émission spéciale moom dootu ñu leen woowaat fii naan leen ay accord non respecté école moom day tëj rek waa loolu moom mënuma ko wax fii parce que euh, jàngalekat yi dafa am ay inspecteur am ay ñu yor ay directeur d'école ay inspecteur d'académie am ay PC am ay MC am ñoo xam ni sax seen salaire far dañ leen fàtte donc yooyu yëpp jox nañ leen ko euh, ñoom ñu ngi nii tëju nii ba fajar ñu ngi liggéey